Mbàkke Xaadim Awa Ba bu ñu ko nuyoo rekk teg nuyoo bi si moom mu joxal ñu ko bépp këru diine bu fi teew parce que tey bésu këru diine yépp la bésu Sénégal la bésu communauté bi yépp la maam Cheikh wax na ko sànq moo tax may jukki nuyoo di ko teg ci loxo Abdoulaye Matar Diop grand sëriñ de Dakar pour que mu jottalil ko tund ndakaaru yépp parce que mbir mi ndakaaru la xewe bon nag ñu ngi sant suñu borom di jël di julli ci sangu-sang yi Seydina Mohamed di wax na son excellence le président Macky Sall moo ñu fi yabal si bés bi xamante ne c'est une première parce que bés la boo xamante ne colloque international bu adressé directement islam ak paix ñépp bokk ko dans l'unité bon donc mi ngi leen di féliciter bu baax di leen encourager di wax ne mujjewu leen poso mu réer bon ndëg nañu dellu ne alhamdulilah bu ma nee mu jëwu leen poussé mu réer nag mag ñi bennoo lañ fi nee woon mag ñi unité lañ fi nee woon mag ñi taxawal réew mi ak askan bi lañ fi nee woon bon dëkk bu ngeen ñëwee yore li ngeen yore taxaw taxawaay bu mel nii damay wax ne xam ngeen ne li ngeen yor ndénkaane la li ngeen yor ndénkaane la ndénkaane suñu borom la déjà parce que suñu borom daf doon dénk Seydina Muhammad di ko jaaral ci Jibril mais am na dénkaane boo xamante ne dafa ko ne kaay wuyu si ma bon nag dénkaane boobu dénkaane suñu borom la d'abord suñu borom dénku sangu-sang yi mu dénk mag ñi ba mu yegsi si yéen ngeen xam ne li leen dénk nag da ngeen ko war a téye pour jox ko génération yi ñëw bon nag président nee na mi ngi leen di féliciter bu baax di leen encourager parce que xam na ne dammitu or or la bon nag mag ñi leen tàggat ba ngeen taxawee seen taxawaay ñu ngi ñaan suñu borom mu yàkk seen leer ñuy wax ne témoin boobu ngeen yore ba tey ngeen war a waxtaanee mbir moo xamante ne dafa soxal bu baax son excellence le président de la république mooy jàmm boo demee ci référentiel ba mu indil Sénégal ba muy ñëw référentiel boobu daf ko indiwaale ne dafa bëgg tëgg réew mi ci ponk yooyu ñu koy wax léegi plan Sénégal émergent ci plan Sénégal émergent boobu boo génnee ñetteelu axe bi mu ngi ko intitulé tuddee ko de manière claire paix sécurité bon dëkk si ponku réew mi li xamante ne moo doxal suñu économie doxal suñu bien-être mu nekk li ñuy guider ñuy conduire suñu dëkk wàllu paix ak sécurité daf si am place bu am solo bon dëkk wax nga dëgg maam Cheikh liggéey bi ngeen di liggéey réew mi ngeen koy liggéeyal. liggéey bi ngeen di rëgg président xam na ne moom ngeen koy liggéeyal laam démb si Wagadugu ba dëkk bi yépp jaaxle laam Mali lu am Nigéria lu am si dëkk yu bari yu nekk si booru Sénégal ñu ngi ñaan suñu boroom mu musal si àddina bi yépp musal ci Sénégal ñu ko déggee yu mel noonu dañuy am ñaari santiment santiment mu njëkk bi mooy inquiétude naturellement mais nag dafa am lu ñuy dëfal lu ñuy dëfal mooy que ne mag ñu baax yi jàngale nañ fi njàngale boo xamante ne bu ñu su wéeroo Sénégal mën na mucc ci loolu bon tey xam naa ne loolu ngeen di waxtaane parce que tollu ngeen foo xamante ne jaratul ngeen di jegaani fenn parce que lépp ngi fi lu ñu mën a leeral ci diine pour que ñu teyoon suñu réew bu ngeen ko waxtaanee ba pare président de la république nee ne mi ngi xaar bu baax recommandation yi mi ngi xaar bu baax conclusion yi mi ngi xaar bu baax orientation yi parce que li mu gëm mooy que ne réew mi réew ñépp la ku nekk rek sa xalaat baax na pour que ñu mën a doxal suñu réew lu mu gëne may terminer nag di ziar di leen ñaan ngeen ñaanal ko bu baax yàlla ko bàyyi ko sagom ba mu mën a yeggali li mu mëbët pour réew mi parce ñaan mooy gàllaaju jullit président mu ngi leen di félicité bu baax si ngeen ko jàppale si dialogue islamo-chrétien bi am Sénégal mu nekk socle boo xamante ne socle bu wér la pour développement dëkk bi mu ngi xaar seen conclusion bu ma laa terminer ma nuyu très fraternellement notre ami et frère maître Madické ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar wasalaam jërëjëf euh, euh, monsieur le ministre ci kàddu président ñu ngi ñaan rek tuuti ndax euh, leçon discours inaugural bi ki ko war a def di sëñ Abdoulaye Thiaw ñu ngi ñaan xudur bi kilifa yi sëñ Thiaw waaw sëñ sëñ Salay Thiaw incha allahu rabbi di doom ci xalif général hmm, Layeen incha allahu rabbi moom mooy def discours inaugural bi. te ki nga xamante ni moo koy présenté di professeur Mounirou Sy ci taxawaayam waaye ñu bàyyi xel ni xalifa eh, eh, Jaamal eh, délégation ñëw na maam Abdou Cissé ñoom ñëpp dañu lim seen tur.